arrêté damay continuer ayca mbokki internet yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajafal ñu ngi toog ak Amdy Moustapha moom nag ràññee ngeen ko mu faree ci Wally Ballago Seck Amdy Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay baax a baax a euh, sa relation ak Wally sekk pour ñi nga xam ne ñoo lay seetaan te xamaguñ la. Ah. waaw mais moom di naan ni lay nuyu ñëpp seen tur ak seen sant ba pare ah di leen remercier ba pare xam nga suma sama diggante Wally Seck mooy lu ma wax chaque rek ku ma xool da nga yaakaar si da nga yaakaar si bees laa ci Wally Seck bu muy fubal bu muy nekk minime loolu yàgg na boobu maa ngi ànd ak magam moomi moomi Seck ndem si yàlla yàlla na koy dem te xaar àjjana moomi moo tax ma xam Wally donc man Wally tal tey bu ko gisee tey jii muy way dafa ma bett parce si football laa ko daan gën a xaar si football laa gën a daan xaar Wally Seck donc moo ko gisee muy way nii man dafa ne ma ah, dafa ma mais nag après dara mënu ma impressionné si moom parce que lu ma xamoon bu muy xale ci moom dafa mu sa am sañ-sañ bëgg rafet osé gëm boppam loolu moo xam naa ci Wally Seck kon boog dama bu ñu ma ñëwee laaj ma si Wally Seck dem si sawar parce que en fait du may faral di def nii parce que fi ma toll si Wally Seck te tamit kilifa dama xam ne mu si nekk di wax donc Wally Seck dafa ne ni bu xam ni yàlla lu mu naan mbër mu yàlla samp doo daanu ku semee mel ne Wally Seck boo bëggee jàmmal sa bopp pour man da nga koy nangu lu ko yàlla def parce que ku nekk rek suñu borom mooy joxe ay xéwalo moo xool lu ko soob si Wally mu def ko donc bu doon nit mooy joxe kenn du am kon man nañ ko ndokk nañ ko ndokk rek te gëm na ne yàlla la yàlla moo ko jiital te du mos a daanu si kàttanu yàlla si borom. coow ñuy wax si Wally Seck tout le temps rawatina nag yenn kàddu yi nga xamante ni dañ koy faral di dégg ci moom yow wax nga ko yàgg nga koo xam euh, tey boo déggee ñuy wax yenn kàddu yu nga xamante ne ay kàddu yu doy waar lay doon ci moom euh, lan la lay def. kon yan façon kàddu nga may laaj. mais loolu bu mu ñu jaaxal parce que fii ku dem rek la ñuy coow ah. ku nar réussir ëllëg ngay dégg ay coow la ma benn paa waxoon ne ma ku ñamul coow bu fexe bul feeñ kon kon wàllu ko fële ko mu dem parce que xam na te mu woon mu dem bu muy door kenn jàppale ko moom kese la ñun fin temps la quoi kon ba moom fi mu tol nii man sama xalaat bu gàtt ne ah coow li ñuy wax ni man kon yéen boso man na bëgg ñu may laaj si sañ-sañ ma lañ toog si sañ-sañ lu amul sañ-sañ man bëgguma si si wax si sañ-sañ nga may laaj ma tontu la sañ-sañ ak laaj laaj boobu man ma ko parce que yaa ngi yaa may commencé tàngool quoi te waaw d'accord alors gis nañu li nga xamante ni moom moo mujjee xew bi nga xamante ne nii euh, dikk Diabaté mi ngi doon def li nga xam ne moom mooy berse bi euh, ñu gis coow lu bëree bëri bi nga xamante ne am na fi ndax euh, moom bi nga xamante ni yéeg na ci kaw chaîne bi dañu gis que bi nga xamante ni yéeg na ñu ko doon yooxoo mais dégg nañ benn influenceur mu wax que ni li nga xamante ni moom lañ doon wax du Wally Seck Mali lañ doon wax loolu noo ko jàngatee. waaw boo nee Sidiki de ne Wally Seck du ñoo bokk yoon mais nduroowuñu du ñoo bokk yoon mais nduroowuñu maanaam ñoom ñëpp ay star lañu ay waykat lañu mais fii danga naan Sénégal da nga naan actuellement ni Wally Seck nga wax muy Sidité Diabaté muy keneen ki la booy la keneen ki euh, waykat bi Sidi Diop ay rakku Wally Seck la parce que bii ba fi Youssou Ndour nekkee ñaata waykat boo fi nekk mais di nga ko ko nangul topp ci gannaawam mais instant yii nii boo ne roi des arènes Wally mooy roi bi waaw ak ku mu munti metti mooy roi te ñoom ñëppay topp ci gannaaw ba keroog yàlla di def lu muy def ci Wally Seck waaw parce que moo ko wane ba pare yàlla jiital ko parce que il fa que mu doon ko parce que social la parce que lu ma am Serap Fall naan wax léegatum kese naxum tey béy jëf jël wala day jëf day jëf maanaam alalam du ko boole ak kenn te yow mi toog di journaliste bi tey boo daan jël sa alal di koy bokk nit ñi foo nga am lii nekk ci loxo bi bu génnul li si kaw du du ñëw kon wala il fallait que mu àgg ndax xol bi dafa sensible xol bee rafet. mais confiance am ak non ak Sidi Diop sax du mu si faral dox parce que man Sidi Diop yàlla dafa def ni musuma ko gis dama ko gis si télé mais booy bu yaru la mais ñi ci tuuti ñooy wax lu ñu xamut mooy ku si ni xaw ma ni ñu koy waxee buuse buuse buuse moom moom xaw ma mbër la xaw ma tiktokeur la xaw ma influenceur mais buuse lan la ko Wally Seck def man dama koy laaj ah, man mu buuse musuma wax soo xam xaw ma ko ah musuma ko gis moom ko mujjee mujj gis mooy ba mu gisee muy mu ngeem ci làmb bi di bëri. ñu ma kii mooy Boucher ma ne mais Boucher moom lu muy liggéey donc man xaw Boucher xamuñu mosuñoo gisante man lu ma koy ñaan a lu ma koy xelal lu ma koy ñaan ak lu ma koy xelal mu nangul Wally lu mu doon Wally du noonam Wally xaritam la Wally gaynam la Wally amul noon ak kenn Boucher man lu ma lay wax man Amdy Moustapha man maa lay man maa lay sànni message bi man Amdy Moustapha lam lay ñaan bu dee na nga Serigne Touba nga yaakaar wàccal booy bi parce que booy bi defaloo dara dama bëgg nga ko te yàlla rek a tax te nga topp sa artiste dund sa artiste kon quoi maa ngi dégg euh, TikTok bi gis naa benn affaire xam ne Boucher mu naan yooxooñu waali mais nopp day dégg lan mooy Mali Mali ak waali dafa dafa bëri dafa bëri di différence Wally Seck lan daan wax moom bu waxul Wally Seck sa jinnee wax Wally Seck Boucher kon bu bu na bàyyi lu muy def waaw non parce que dama gis chaque jour ma gisee TikTok bi rek damay gis Boucher di wax waali waali waali waali waali te nangu day jël cëru bañ Boucher bu dee dafa am li nga soxla si wàllu seet ñëwul ñu ànd sa la famille wala bu dee da nga am na loo soxla ñëw laaj la wala bu dee am lu foo bëgg a jaar wàll si jaru ngay jaar si wàll ñëwul ñun waaw showbiz tamit mi ngi ci mais après doo dundur showbiz xam la lay mujj après soxor du showbiz parce que lu nekk nga yàq booy bi te booy bi mi ngi ci yoonam nag xam li ngay ñaanal waxuma sax ay ay mu jël Dix d'or bi indi ndamu senegal Boucher man maa la koy ñaan s'il te plaît war a def topp ci gannaaw booy mu indi la ndam li tegal la parce que ndam li ñu ñëpp la ni nga Youssou Ndour indi na ko ñoom Viviane ñëpp indi na ko Wally Seck dafa war a indi loolu lu kon nag na ngay mën a ñaanal mu indi disque bi ak jàmm ak salaam mais yow Boucher mënoo tere Wally Seck indi disque d'or de te yow Boucher mënoo tere Wally Seck am nu mu am de day dem dafa am ñaanu ndey am ñaanu baay am ñaanu mbedd bi kon saa doo noppal sa bopp te Serigne Touba tax ah lanati am waaw. Euh, ay ayca mbokki internet yi ñu ngi toog ak Fifty ginnaaw bi ñu jógee ci am Amdy Moustapha euh, Fifty maa ngi lay nuyu. maa lay fay ah, waa Sud yëpp rawatina maa ngi bi si Mass ah, sama xarit sama seex ak Idali ak famille bi ah. ginnaaw bi ma sant sant Yonent bi sant sëñ sama yaay Awa Samb nuyu ñëpp di nuyu Wally Seck njabootam. alors fi ñuy dooree waxtaan bi mooy actualité bi. Euh, Wally Seck invité nañ ko foofu nga xamante ni moom mooy si euh, Paris euh, ki ko doon amal muy Sidiki jabaate alors noo jàngatee présentation bi nga xam ne Wally Seck jot na ko faa def. bon wax ji sax yëpp am di wax na ko invité nañ ko ak invité yéen xam ngeen lépp lu demee parce que influenceur boobu di wax tur la bëgg si Wally moom heure bu fayee rek foog mu laal Wally mais day jeex quoi moom bu ne moom nee na taalibe Serigne Touba la na na topp li mu gëm ñu topp li ñu gëm mu neex mu naqari Wally moo fi ne. xam naa lii boo gisee sax mun naa ne ni ko neex du ko neex ñi koy tudd di ko jéggalu mais mënul ñàkk parce que ñun waali ñun say fereel la ñaa ah. suñu patron nga yaa ngi defar lépp lu ne kon tey ji mënuñu nit benn nit chaque jour ça fait des années des mu jàpp sa nopp bi di wax guddi bëccëg waali nii di wax di di di wax ñu dañuy wax turam buuse la ñuy waxal man fii ti maay wax ak yow am na yoo xam ne dafa ñaaw si doomu Adama Ndiaye c'est moom day jaxase ah waaw bien sûr mais chaque jour benn nopp nit nii mais yéen gis ngeen loge yi kan moo nekk si loge mais kan moo nekk si loge yi laa wax mais yéen lay laaj loge waa lu luñ si bind waaw mais yooyu sax jarul sax ñu koy détaillé parce que Boucher lii la si bëgg nit ñi di wax si moom moom lii la lii lii kese la si bëgg. non non non moom moom artiste am yàlla ko yàlla defal jàmm defal ñëpp jàmm ñun waali lañ am mu neex mu naqar waali moo fi ne ko bañ nga génn Sénégal dem feneen mais na arrêté quoi am na yoo xam ne rafetul moom Baye Fall la taalibe Serigne Touba la am na yoon yu bëri yoo xam war ko sax di ko joxee ñu ko ñu koy di ëllëg Sidi du fay day xool ëllëg ay njabootam la war a xool am yoo xam ne rafetul dafa ñaaw xam nga mais na arrêté quoi am yoo xam ne ñu ñun bu ñu neexee lu mu def ñu toog suñ kër woo ku ñu neex ñun Sidi yëpp ku ñu si woo da ngay ñëw ñu ngi koy defee mun nañ ko am nañ ko mun nañ ko mais am na yoo xam ne rafetul moom kilifa la topp artisam def lu muy def fii Wally moo fi ne mu neex mu naqari Wally Seck ak Boucher lan moo ci nekk. dara nekku si buzz la bëgg ah déggoo leen ma moom bu heure bu laalee Wally am buzz mi ngi jógee fan yi passé si benn si benn combat bëggoon ñu fay affaire boobu moo tax muy laal Wally ku bëgg buzz da nga laal Wally loolu force la loolu yàlla moo ko fi def loolu la bëgg buzz rek la bëgg moo tax muy laal Wally bu laalu fu amee buzz mais foog mu laal Wally mun a am buzz fu nekk ñëpp a wax si moom loolu la bëggoon. loolu la bëggoon ñëpp di wax si moom mais na arrêté quoi moom Baye yoo xam ne jomm sax ñu koy def ñu koy dégg ñu koy wax loolu am lu ñu koy le euh, tey ñu wax ki nga xamante ni moom moo di Wally Seck moom mooy parrain bi moom mu weddi ko nee na Wally Seck kenn invité wu ko dañ ko invité foofu tamit Wally fan la génnee loolu loolu loolu détail fan la génnee yéen laa koy laaj diggi Bercy la génnee te ñëpp mu ñëwee gis ngeen si diggi jàpp yërëm na ko feccal saal bi wéet wala yëngal saal ba mu yëngu kon moom na arrêté ko am na yoo xam ne ku bu bëggee dara si waale na ñëw wax ak nit ñi bu ko bëggee waale jàppale dañoo waale mu jàppale ko mais pas nii la koy defee moom moo njëkk a yëg seen waale Amérique waale may ko xaalis gis ngeen lépp du ko weddi moom moo njëkk a yëg seen waale Amérique yëg na fa waale may ko xaalis bëri am ak moom jàmm moom ay nitam yëpp ay xaatu waa ay waale la ñuy bëggee daa may xam ne rafetul dawal lépp teg ko si yoon xam moom mu ànd ak artiste mu ànd ak suñu artiste ñun waale lañ xam moom lañ am moom lañ gëm moom lañ àndal ba yàlla may li mu koy waale bu bàyyee way si yëpp ay arrêté kenn dootul déglu kenn. waaye kay ñun dañuy continuer di liggéey nag. non mais foo ñu amee buzz ñu ngi liggéey kat. waaye joxuñu liggéey kat non ni ngeen non waaye bàyyi ni ngeen liggéey seen liggéey loolu dëgg la mais fu mu nekk waaye buzz buzz buzz mu leen jox keneen lu ko si Sénégal si jeune jeune talent kan la. Sidi Diop a ngi ñu koy jox kan. waaw moom yàlla ko yàlla defal jàmm. yàlla may ko gudd fan. ak Ibra Naajo. ak ñoom Ibra Naajo ñoom ñëpp yàlla yàlla defal jàmm mais ñun kenn lañ xam muy Wally Seck xam nga loolu mooy attitude bi moo leen wooñu en tout cas fu mu nekk ñu ngi ñaan Wally Seck yàlla dafa ko jàmm may ko gudd fan di wax nii man damay tudd buuse laa wax. yow attaqué nga buuse non du attaqué de xam nga gars yi dañu nekk wax ay influenceur non non damay wax buuse na arrêté quoi na topp liggéeyam moom bu dee mbër la wala engagé na ko topp yàlla dafa ko jàmm te topp li muy topp mais moom bàyyi ñu suñu artiste am na yoo xam ne rafetul topp nit ça fait des années di wax si moom guddeeg bëccëg matin midi soir pour lan dama ko waali def man dama boo xam ne lan mooy problème bi na arrêté quoi parce que moom taalibe Serigne Touba Serigne Serigne Touba taalibe Serigne Touba du tooñ te moom mi ngi tooñ gis nañu euh, ñaari influenceur yooyu muy Boucher ak ki nga xam ne moom mooy ñaaxarañ loo euh, seen guerre bi nga xam ne ñu ngi ko doon guerre dégg nañ ñaaxarañ loo wax ni Wally Seck moom ci hôtel résidence dañ ko waaye ki nga xamante ni moom moo di euh, Sidou Diop moom ak gàddu koor yi lañ boole est ce que tamit loolu rafet na. non man nag loolu des na maa leer du ma fen quoi parce que may wax ma xam man non non man loolu des na maa dégguma ko wax ma si Wally Seck mooy Bercy bi mu yëngal fu mu ne ñëpp dox Wally Wally muy mel ni si Wally moo doon tëgg Waly ak Sidi Diop ñi leen def euh, ak ak kii euh, baal ma Sidi kii Sidi Diabaté ñi leen def xool waaye bu mu duggee scène bi ñoo na yëngal Sidi Sidi Diop ñoo na yëngal loolu mooy àdduna mais am nay wax yoo xam ne rafetul Boucher na bàyyi bu bëggee buzz ak foog mu laal Waly loolu dafa war moom na topp yoonam Waly topp yoonam c'est ça moom taalibe Serigne Touba la non non ban jaxase. parce que bu ñu waxee ni Sidi Diop dañ ko dañ ko boole kàpp ko non loolu du fen man des na maa man loolu dara leer ma man waali moo ma ñor danga laaj ci waali moo la ci waali yaa may dégg man loolu ñorum man leeru ma si en tout cas li may wax daal mooy waali yàlla ko defal jàmm may ko gudd fan yaayu waali yàlla moo ko fi teg yàlla na yokk yàlla bu mu xew yi mukk jusqu'à la mort yàlla ko yàlla may disque d'or bi muy wër yàlla def ko mu ñëw si jàmm xam nga ñëpp feete ko si ñëpp ñëw waaw Boucher bu leen bëggee yëngal rek yëngal leen Boucher kese moo génn yéen ñëpp ngeen génn parce que xam nga moom li bëgg bës bi dañ ko koy may sarax la moom non du kee moom loolu loolu bëgg parce que bu ñëwee laal waale moom taal bi Serigne Touba la man bu ma moom def naa deux fois la xaw ma trois fois yaa may dégg moom heure bu bëggee bës rek foog mu laal waale te du noonu waale defu ko waxu ko ñun nag lii xam naa du neex sax waale man kenn xamee ma lii mais am na yoo xam ne toog suñu duq rek jàpp suñu ñàmbur ñuy xas suñu artiste ñu mel ni ñu am ay nit non non non non ñu wàll lañ am ku laal wàll daf ñuy laal yaa may déglu yéen xam xam luy problème bi wala ma génne vidéo ngeen xool ah mais Wally fan la génnee man la laay bëgg xam fan la génnee loose moom loose loose asamtaa loose dañ ko jox foofu woo nañ ko ak woowu ñu ko loolu moom la concerné ñoom ñoo ñu wax loolu mais en tout cas ñëpp ñi fa demeen waa Paris waa maa ngi nuyu ñëpp ñi fa demoon xam nañ dem na way na yëngal na public bi ñëpp ngi nag waali waali waali waali ñëw jeex na c'est ça wala c'est quoi le problème alors euh, ngir ñu bàyyi la nga dem ndax Wally Seck moom itam euh, jamono ji warta waaj lu mel ni Bercy ba nga xamante ni du ñu mën a langaamu ci euh, li nga xamante ni moom la si Diabaté doon def Bercy da ngeen fàtte mais bien sûr a Bercy da ngeen fàtte mooy Wally bi muy tëgg foofu ba ban année ban année la Bercy Paris ban année la waaw bi mu mujjee Paris 2016 xool nu mel gis a ferme lañ def Wally xam na Paris de xam na saal yi balaa la mooy xam ne Wally la yàlla ko may bu mu njëkkee ñëw si euh, saal bi Wally Wally nga doon dégg Wally Wally na ko na yi nangul li ko yàlla def du kenn de yàlla moo ko jox te xool day gën a yokku Wally booy wax si moom day yokk yow ngay anière am si. non man. nee euh, na génne vidéo ko yàlla defal jàmm moom yàlla na ko yàlla soppi yàlla may ko gudd fan bu baax li mu bëgg doon influenceur xaw ma lu mu doon yàlla na ko yàlla defal jàmm mais ñun en tout cas mu neex mu naqari fii Wally moo fi neex waaw ñun moom lañ xam moom lañ gëm moom lañu àndal ba muy bàyyi woy bu bàyyi woy nag man pare naa si musique waaw ma ne ñu nuyu waa Sib yéen ñëpp ñu nuyu Mass sama xarit Idali ak ñi ma xam ñi ma xamul bëgg naa ci yéen kontaan naa ci yéen Wally forever Disque d'Or forever maa ngi nuyu ñëpp nuyu faramaa leen di maa ngi tuub di jégalu nag ci kàddu gi ah yàlla ma yàlla jégal jégal Wally Seck yàlla ma gudd fan forever